gërëm leen bu baax sant leen ci ànd bi ngeen àndandoo Feeling Dakar la chaîne leader am mbégte ak euh, contentement saa su nekk la ñuy àndandoo waat ak yéen di euh, seen jataay bi nga xamante ne bii mooy kéemtaan di ciy dalal borom xam waaye itam di ciy dalal ay kàngam yoo xamante ne bi seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu ñaan ak faj waaye itam saa su nekk bu actualité xewee ci réew mi ñu génn wax ci seen xalaat donte ay citoyen lañ tey nag kii ma euh, dalal kilifa la. waaye mën nañu ko euh, woowee euh, surtout ma sàmba Diop Samb ndax itam yaakaar naa ni euh, maamam ku ko xamul dégg nga ko sëñ sàmba Diop Samb mi nga xamante ne bi moom itam yaakaar naa ni datuñ ko présenté ci réew mi alors Serigne Abo Diop moom laa dalal Serigne Abo moo lay bàyyi nga nuyoog internet yu Feeling Dakar ñu soog a dugg ci waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه صبر الردوان وتمكين maa ngi nuyu mboolem jullit nuyób lislaam te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen fay nuyoo ak yéen ak mboolem koo xam ne moo ngi ci barab bii may àddu ak yéen te moo di Feeling ndakaar di ñaanal bu baax kilifay diine yàlla bàyyi leen fi ba li ñu naa la liggéey lislaam ñu yëggale ko ba nañ ko bëggee waaye kasaalika kilifay xaada yi may sant bu baax ci jataayoo ak yéen ndax sama jataayoo ak yéen lenn rek moom moo di sabab bi muy li yàlla def ci man ma fas yéen a dimbali képp koo xam ne tane naa la ca ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa ma dafa wax ni képp koo xam def naa ci yow dara rikk loolee na nga ca dimbali sa morom doomu aadama te itam euh, responsabilité la boo xam ne daf koy laaj bu ëllëgee yomal xiyaam moo tax daal maa ngi sant bu baax ci jataayoo ak yéen ndax sama jataayoo ak yéen li ma wax rek moom moo di xam-xam bu néew boo xam ne yàlla def na ko ci man te ma fas yéene dimbali képp koo xamee ni tànn naa la ca. Mm-hmm. macha allah yaakaar naa ni euh, sëriñ bi léegi léegi dañuy euh, attaqué li nga xamante ne bi mooy actualité alors euh, actualité li xew ci réew meeg ci àdduna waaye dama njëkkee d'abord ci Sénégal tàmm nga di fi wax ay révélation yàgg nga def ay révélation ci ay këm ci ay ci ay kilifa yu bari yu mag. mais euh, sa xalaat laa la bëgg a laaj ci euh, Guy Marius Sagna ak capitaine Touré Barthélemy Diaz bi mu leen jëlee euh, ginnaaw barki dem rek def na benn conférence de presse di wax ci ne loolu neexul président ma Sall donte wax na waaye gaaru waale na ko yu ni mel donc conférence de presse loolu la ciy junj ñu gis sax yenn presse yi reprendre ko alors sa xalaat ci loolu. waaw li ma ciy wax waxtu wu nekk rek xam nga léeg-léeg dafay toll sax foo xamee ne daanaka ñun duñu waxee xalaat dafay am loo xamee ne daf ñuy leer naññi. wallahi daanaka ni ñu sunu juróom baaraam yi leere loolu sax moo tax daanaka sama jataayoo tey jii ak yow ndax damay faral di wax ni euh, maanaam muy mbirum capitaine Touré moomu ak Guy Marius Sagna mën naa ne lépp lu ko war lépp loo xam ni lal na ko ba ba tax tey jii ñu xañ leen seen àq ak seen yelleef fii ci biir réew mi daanaka boo xoolee la ko teg as euh, maanaam cëslaay ba lépp lépp politique la. te moom moo di mbirum Ousmane Sonko ak soxna soo suñu wax saar su ko defee rek waaye li ma ciy wax rek moom moo di la ma doon wax rek moom moo di dafay doon dossier boo xamante ne si ni mën naa ni politique rek moom moo ko lal politique rek moom moo ko lal te doonul lurut ngir faagaagal adversaire politique te tamay xam le ni waxtu wu nekk ci samay émission damay faral di insisté ci lu baree bari di wax ni Ousmane Sonko. li ko yàlla defal nga xam ne tabixam dafay euh, ngelaw xawaa iyu maanaam kooku yombuta suul ba noppi itam turu Ousmane rek boo ko euh, adadoon fi mu ne nii mu ngi lay jox mi ngi tombe turu yàlla wi ñu wax asaahiru aji feeñ ji xam kon kooku neexuta suul ba tax na daal ñoom ak seen aq ak yelleef yu ñu leen xañ yépp damay dellu di wax la ma daan wax président Macky sàll li ma ko daan wax rek moom moo di président Macky Sall rikk na delloo na dol na dolli yërmandeem ci ñii ko yàlla jiital ndax yàlla xam na ni kat askan wi kat sonn nañu lool yàlla seeru ko bu dee yàlla rek a tax may wax te wakafee billaahi sahidan ndax euh, boo xoolee ku ne xam na ni euh, maanaam réew mi depuis 2012 ba nga ko tegee ci réew euh, ci loxol président Macky Sall tey ku ne xam na ni maanaam réew mi dafa gën a jéggi dayoo ku waxal rek te yàlla rek a tax ba tax na kon président Macky Sall maa ngi koy gën a ñaax mu gën a dolliwaat yërmandeem ci askan wi ko yàlla jiital ah tam xam ni yàlla kat juru ko réew mi ngir xam-xam bu bari wala ngir ak juddu ndax luñ ci mën a doon rek ñu ko fuufam fi yàlla jox ko ko kon yàlla la soob kon nag loolu maa ko koy gën a fàttaliwaat bu baax di ko bàyyi xel ni ko nguur gu dul nguurug yàlla dafay jeex kon na bàyyiwaat xel ci gën a ragal yàlla ci askan wi ko yàlla jiital te xam ne kat bis dana ñëw de yàlla jël ko te yàlla boo koy jël comme ni muy jëlee ñëpp rek nan lay yàlla daf lay jël ba noppi ñu takk la ba nga dëgër ñu jébbal ko. te bu boobaa nag keroogee bis penc bu boobaa na ko wóor ni ah yërmande yàlla yërmande yàlla rek laa ko fay ñaanal de waaye bu boobaa alquranul karim nee na da nga gis ñoo xam dañuy yuuxu ca kaw naan maa ax naa xan nii maaliya xalaka xan ni sultaaniya ñii di yuuxu ca kaw naan daraja ji ma yàlla ndombal tànk li ma yàlla joxoon ci àdduna moo ma alak ñii naan alal ji ma yàlla taxoon moo ma alak loolu daal maa ngi koy wax mu gën a dellu si xelam bu baax soo gisee nag ma ci gën a insisté waxtu wu nekk wallahi wal quraan al aziim damay faral di gis deret ju baree baree bari yoo xamee ni nar naa tuuru fii Sénégal ci mi ngi amee ci sababu bëgg-bëgg président Macky Sall wallaahi wal quran ci sababu bëgg-bëggam moo tax daal maa ngi koy wax mu dellu si waat xelam am na lu bari lu ñu koy digal loo xam ne bu ñu doxee de wallaahi dara dina fi tuuru lool te bu boobaa dana ko layoog borom bi subhaanahu wa na xam ne daal Firawna moo ëppoon ñëpp nguur te fa ko yàlla mujje moom mooy fa aghraqnaa wa man ma'ahu jamii'an yàlla labal ko ak mboolem ñi mu àndal bu dee ci xalal la xëy na sax alal gi ñu ëpp suñu alal la ñun waa réew mi waaye bu dee ci wàllu alal la naka wóor ne xaaroona moo ko ëppoon alal fuuf fa mu mooy fa xasaf naa bihi wa bi daari arda yàlla xar suuf si def ko ci loolu daal maa ngi koy bàyyiloo xel bu baax baax a baax a donte dañu ko euh, jëlee ci li mu nekkoon waaye gis nañu ne fu mu nekk nii millionnaire la ndax itam yaakaar naa ne bés bi ñu ko dàqee ci la xam nga wàllu ma ci dee wax sax. Hmm. sama xol dafay yëngu damay bëgg a teg maanaam mbubb mi ma amee nga xamante ne si ñu koy wax kilifa diine. waxe comme citoyen citoyen simple waaye dama ci xam lu ma metti loo xamante ne si ni yéeme na boo xoolee capitaine Touré noonu ko waa réew mi yëpp maa ko taxaw ko dafay firndeel ni maanaam réew mi ci jëmmam ñoo dema dem ba sonn ci ñu réew mi doxe te xam ne réew mi doxe na waneen yoon ak wu doonu dëgg moo tax daal rikk bu ma sañoon rek ñuy jàll ci waneen wàll wi nga xamante ne si nii yàlla may na ma ci lool te doomu aadama itam namoon ma ci lool wax dëgg yàlla mm-hmm. dafa def weer yu tedd yi ñu génn yëpp maa ngi ciy baalu ñëpp àq muy saaru Ramadan yàlla dafa def dañ li ñu koy dugg xalwatu dafay bari li ñu koy wéet dafay bari wax dëgg yàlla gëjës nañ ne jot téléphone te nit ñi namoon nañ ñu lool moo tax daal bu ma sañoon ñu féetal ci wàllu yu ma yàlla may. Euh, ci euh, wàll woowu lañuy jëm euh, daanaka danga toog ci réew mi di gis ay seetkat yu jaar ci jataay bi yu jaar ci yeneen média wax ci lu bari ci réew mi boobaak léegi nga ne tekk rek waxoo te daanaka li la yàlla may si ci seet ku nekk nangu nga ko yàgg nga def ay révélation yàgg nga ci wàllu seet ci baatin looy tëdd la ñu lay wan wala looy xamante ne da nga koy listixaar di ko fanaanoo yenn révélation yi boo ko dee def fan nga koy teg xam nga wàllu seet duma ci sax bëgg di euh, xootal ndax yàlla dama cee may mayin wu doy war woo xam ne ni yéeme na maanaam fi mu ne daanakaa ni wallaahi léeg-léeg borom bi daf lay wan ci ay mbir yoo xamante ni si nii maanaam yéeme na lool fi mu ni man naa ni ñu bare bare bare bari dañuy faral di juum ci ni wa maa yaxlamu xayba rek moo xam xay bu dëgg la yàllaa ko waxal boppam ci alquranu karim waaye xam ni ñëw dafa bukkut ak xam xay bu loolu ci misaal rek boo demee ci suuratul jinni borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ni wa inna la nadri asaru nurida bi man fi ardi amarada bihim rabbuhum rasada maanaam junne yi yàlla daf leen xamal li ñëw nga xamante ne si ñoom xam na ni jëmmam am na lu yàlla nammal waa suuf xamuñ nag ba xam aw yiw la wala ab safaan léegi nag ndegam junne mooy xam na lu asmal ak doomu aadama te kat ku ne xam na ni borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni wallahu yaalam wa antum laa tax la taalamoona man xam naa te yéen xamoo leen waaye ku xoolaat ci suuratul baqara da nga faral di da nga dégg suñu borom di wax ne wattaqullah wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamalal leen boppam moo tax wallaahi wal quraan asim yàlla may na ma ay tur yàlla yoo xamante ne si dama koo tërbiyewu ci ay nit yàlla ban sant ban ban ban jox ma ko ci seen xol sedd ca gis nga loolu billaahi la si laa ilaha illa huwa xayruhu bu ma ci waxee nit ñi ko fayal say bor da ngay faatu léegi say bor mu for ko taxam day faat day faatu waaw xam nga man yàlla dafa def ni sax man mënumaa ñaanal doomu aadama te seetuma ko ndax jàpp naa ne njàqare nit bu doon am néega seet mooy bunt bi nga a jaare te ndax alquran karim waatul buyuuta min lu nekk dee leen ko jaare ci bundam te jàpp naa ne njàqare nit ki bu doon am néega seet mooy bund fi ñu ko war a jaare fi mu nii dama wax ni bari na lool gàllankoor yoo xam doomu aadamaa nga jaar la ko ko teg mooy ba mu cay dugg da ndax mën naa doon ci lu mel ni wàllu soxna lu mel ni wàllu kër wala daaba yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon moom moo ne maanaam gaaf dafa nekk ci kër nekk ci soxna nekk ci daaba waaye daal hmm, yàlla moom may na ma ci mayin woo xamante ne si ni doomu aadama bu mu mën a doon fu mu mën a nekk ci àdduna bu fataa teng loxoom bi yónnee ma wallaahi wal quran dinaa ko leeral lan mooy ay jafe-jafeem ànd ak lan moo ko gàllankoor waaye ànd ak lépp lu koy saafara xam nga te daf lu am solo la nag xanaa doomu aadama bi moo xam fi mu ci war a teg rek maanaam bañ dem ci ñi nga xam dañuy njabar yor ay biddiwa ki ay béjjën ki xaawa ki pettaaw yooyu dafa yooyu seen wérul yooyu dafa xaraam ci ab yàlla borom bi subhanahu wa taala na eh, yaa am bi nee na rëbb na yàlla rëbb na yàlla nee na rëbb na ñooy dem ca ñooñu ñooñu yor ay xàmba ki béjjën ki pettaaw da ca seet yàlla rudd na ñoom ñu koy def waaye ànd ak ñay dem ci ñoom moo tax nit ki buy seet na dem ci ñi xam ñi xam xam-xam bu wóor te set wicc. ñu nag lan ngay seete. li ñuy seete turu yàlla wax naa la ko léegi maanaam ci turu yàlla la ñuy seete maanaam ci fu waaye mën a nekk doomu aadama ci àdduna bu fataa teg loxoom bi bu ma ko yónnee wallaahi ma leeral ko lan mooy ay jafe-jafeem ànd ak lan moo ko gàllankoor waaye ànd ak lan moo koy saafara lu am solo nag parce que borom bi nee na euh, ci suuratul baqara xasa an takrahu shay'an wa xayrun lakum wa xasa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum maanaam jaam bi amaana muy bëgg loo xamee ne gënut ci moom amaana itam mu bañ loo xam loola muy bañ moo xam ne leen yàlla nag xam gi mu xam ci la xam ne ñenn ci ay jaamam moo tax bari na loolu waxtu wu nekk ñu gis ko fi nit bëgg na fi loo xam ne fa mu sottee fa la bakkanam dese nit bëgg na fi loo xam ne fa mu sottee rek mu commencé nekk ci gàllankoor commencé tawat moo tax daal doomu aadama bi lépp lu mu dugg rikk na ko seet képp koo xam ne gàllankoor ba say lépp loo dugg mu tas dëkk nañ ko seet loolu ci yeneen wàll la am na ci wàll yoo xam ne mënoo ñaanal doomu aadama bi te seetaloo ko mën naa doon ci wàll tabixa ci wàllu biddiw wala ci wàllu rawxaan loolu daanaka ñaanal nit ki te seetaloo ko day mel ni rek ngay tandu fi mu ne nit ki mën ngaa bind jox ko mu takk takk ba sonn du gis dara mu sangoo sango ba sonn du gis dara bu ko defee fekk ni maanaam am na sarax sax boo xam mooy defar mbiram parce que nit ñi ni noonu lay defar seen mbir wutee moo tax lépp rek ci seen la koy jaaree loolu daal lañ ci mënoon a wax ci gàttal ak foo mën di nekk ci àdduna bi nit ki fu mu mën a nekk ci àdduna wallaahi wal quraan bu fataa teng loxoom bi su ko yónnee dinaa ko leeral lan mooy ay jafe laa wax lan moo ko gàllankoor waaye ak lépp lu koy saafara sëñ bi lan moo war a euh, mën a gàllankoor doomu aadama ba muy nekk ci ay jafe-jafe lan li mën a gàllankoor doomu aadama dafa bari lool waaye jàpp naa ne génn juróom yi juróom yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo waxal boppam yonante bi ni ko yow yàlla euh, waxal ni yow yàlla yàlla na nga ma musal ci juróom yi juróom yooyu mooy yan mooy min yi nekk ci alquran mooy min sarri maa xalaqa ak wa min sarri xaasiqin saa xoba ak min sarri nafaasaat xannaas loolu su ma ko dee tënk rek mooy li Serigne Touba mm, wax ci xasidaam googu di wax sindi di di wax ne ba kum muhisal lanaa min sarri chiasatin max sarri xayni yàllaah wa sarri sixrin wa charril xalq insihim wa max jinnihim ba ca jiitu moom mooy iñaan iñaan mën naa gàllankoor doomu aadama lool fi mu ne nit mën na laa iñaan rek nga daal di faatu ndax ku ne xam na ne iñaan fu nekk la ëpp waaye rawatina loolu du samay wax wax yonent bi sallallahu la yonent bi nee na sulus xuburi ummati min alxasadi sama xeet boo leen xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ñoo ngi faat la leen faaj ngi bàyyi ko ci iñaan ñaareel ba mooy alxaynu bët bët fi mu ne nii moo gën a doy waar lépp fi mu ne mën naa am lu ne wallaahi bët xool ko yéem ko rek fa santé ay mbiram yëpp commencé yàqu mu commencé am gàllankoor dootu defati dara lu loolu nag du samay wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nee na aksaru man yamuutu min ummati baxda qadaa illaahi wa qadrihi bil xayn nee nañ ñi ëpp ñu faatu ci sama xeet bi gannaaw attab yàlla ak dogalam ñoo ngi ñoo ngi faatoo ci sababu bët ñaareel ba ñetteel bi mooy iñaan moo mooy mooy njabar njabar moom ku ne xam na ni mu mënee gàllankoor doomu aadama moo mën a fekk koo xam ne ay mbiram yëpp da doon dox ñu liggéey ko rek ay mbiram yëpp jaare fa laal suuf ndax na yonante bi boo gisee falaxe ak naas li tax mu wàcc xam nga lan moo tax mu wàcc maanaam dindil yonante bi ak njabar moo tax mu wàcc ba ko juróomeel la rek moom mooy euh, rab rab jinne ju bon rab moom dama ci xam lu ma metti lool ci réew mi dafa bari ñuy woote woon dañ koy faj jël lu mel ni jigéen nga xam ne léppam awraam la ñu ñu léppam awraam la ñu koy sotti ay saafara ay sunguf muy wëlbati kooku su ko defee loolu fajut rab loolu ak njabar rek la rab nag ñaar ñi lay dugg nit benn dafay dam nit ki wala nit ki dond ko su ko dondee moom mooy lu mel ni néegum ndeyam wala néegub waajuramu góor boobu moom mënuma koo dindi waaye mën naa koy jubale ak aadama ba dootu gàllankoore ñaareel ba nag moom mooy bu dabee bu dabee nit